bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irrahimi wasalaatu wasalaamu ala rasulihi ilkarim wa ala man itabacahum bi ixsaanin ila yowmi alxumum yi suivre seen chaîne Majmahun Nurayni TV ñu dikk ak tey ci geneen ak yóbbal bu ñu toxalee ba tey ci téereb sëriñ alxaaji mbàkke bi mu tuddee saafara su bàkkaar te mu doxalee ko ci téereb sëriñ bu mbàkke moom sëñ Tuuba bi tudd Naylul Awtaar danga fekk ci téere bi mu wax ni ku jàng sóoratul lixlaas ba mu jeex teg ca lii subhaana man huwa baaqin laa naa subhaana man huwa alimun laa yansa subhaana man huwa qayuumun laa yanaamu subhaana man huwa daaimun laa yasuhuu subhaana man huwa waasicun laa yatakallafu subhaana man huwa qaaimun laa yalhuu subhaana man huwa azizun laa yudaamu koo xam ni jàng na suratul ixlaas ba mu jeex teg ca wax jii ma jot a wax sunu borom dana ko bindal junni junni yiw faral ko junni junniw ñaateef yëkkatil ko junni junniy daraja kon mbokk yi loolu mat naa def lool rawante naag weer wii ñu ne di weeru njëggal la